mu dem de jaar mu ne ko demal nga jaar bobu dafa sedd léegi mu jël loxoom bi xam ba matt mi mbubb mi takana yire yére bi mu sàngoo amul kenn ku ko jàppale rek mu nekk di man ta joy sax ben xele mo doon dem rek seen ko mu ne ah lakk rek fa ko rek di ñuy sotti suuf ci yaram bi suma xol bi naqadi torop bima gisee gis nga ni Aliou mer kii dana dee ma ne ko du dee de dafay dee ma ne ko dee dee yàlla baax na du dee lakka-lakka bii mën na koo rey di dem di ko faju bis bu xay bu ne ma dem bajeel mu ne yóbbu naa ko docteur ba sonn waaye de ak kii mu ne ma ne ko dama ko yéex a wax Birane lii de métti na de yalla def ma ñu dalal ma ubil ma lepp ma am jamm suma doom am jamm ñu ree rek fajal ma ko boom wét tey la ko gëna man tey moom li mo def ni masu ko man loxo bi mu cee lekk ni bu baax mu ngi dem ma for gerte ci àll bi nga welo yi de dawal ak ponu kontaan naa ay bokkam kontaan na képp ku leen dégg rek kontaan na na sant yàlla bu mu bëri ma di leen gërëm te di sant